asalaamaaleykum wa rahmatullah soxna Fatou abdu maa ngi lay nuyu baax Ndiaye. Mhm. di la ziare. di ziare réew mi yëpp adduna bi yëpp ñu ngi seetaan tey. di gisal ci sama nuyoo nag sëñ Muntaxa Mbàkke sunu yaakaaru tey ak ëllëg di ñaan sunu borom guddal fanam weeru ci yaram te bàyyi ko fi. di nuyu bu baax sëñ Maam Moor Mbàkke moom sëñ Masamba Mbàkke di sunu buntu ci sëñ Touba. di bu baax alxaaji Mbàkke yu fay muy jëw jëwriñu sëñ tubaa fii ci ndakaaru di nuyu bu baax sunu wayjur yi toog alaaji Ablaay Lam ak alaaji Ablaay Mbay Peex ku leen xam-xam leen ci sëñ Tuubaa ak xasaayit alaaji Ablaay Lam mi bi muy nekk RTS boobu télé ak rajo benn la benn la fi ñu nekk fa ñeme lool di wax sëñ Tuubaa te boobu RTS ko fa wax sëñ Tuubaa ñu dàq la wala ñu génn la mu nekk fa sëñ Abdu Xaadir teg ko fa moom xam na ni sa sëñ Abdou Khadir ko fa teg mu nekk fa ak sunu wéyjuru baax yu Alaaji Ablaay Mbay Peex di nit ku baax jëmmal sëñ Tuubaa jëmmal ab taalibe di ko fital di ko ñemee li teg ci maa ngi fàttaliku bis bu rëy boo xamante ni euh, soxna Adja Ndiaye Badaloo moo ko doon def euh, ci euh, Duuta Seck booba lay door a dikk Ndakaaru waaye naka mu séen rek ni ma neel der boobu wute na ak tey boobu damaa mën a jàng lool mun ma neel der te loolu fital nit la ak jëmmal ko ak ñemeloo ko la ngi lay ñaanal mbay yàlla guddal sa fan te wéral sa bàyyi la fi di nuyu baax sëñ Mbàkke Mbuub géwalu xaajam rasool à travers tout le monde ñoo ngi lay genre bu baax di la ñaanal gudd fan ak wér di nuyu sëñ Cheikh Sarr bu baax du ko ñaanal gudd fan ak wér di nuyu sëñ Abdou Lahad Bousso mii toog ak sëñ Mouhamad Mbay ak sëñ Am Diop ak sëñ Ablaye Diop bi sama baax mi nga xam te ni sama wëllëre la day engagé programme sax ci sama tur ni ma engagé naa programme de bis sàngam ma ànd ceeg moom dem fekk ko ànd ak moom di nuyu bu baax sama waa kër sama yaay ak sama soxna yu tedd yi ak sama njaboot gépp ak suma kilifa gu baax gi ñu àndal muy sëñ Modou Kanji Kanji Soose xam ni sunu wayjur la sunu mag la sunu ndijaay la lépp la ci ñun mu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér di nuyu baax sunu kilifa goo xamante ni ci xasaay yi amuñu lu dul moom muy sëriñ lu gàmmu ca Kaolack di ko ñaanal gudd fan ak wér jaarale ci siyaare bokki taalibe yépp ak bokki jànkati xasaay yi yépp c'est fadob mm-hmm. waaye maa ngi nuyu nag sama bokki dëkk bi ci àdduna bi yépp ndax plateau bi àdduna bépp moo koy laaj ndax man ci àdduna bépp laay dem dem naa ci juróom-ñaar fukki réew ak juróom ñaar 77 pays waaye réew mi di Sénégal communauté rurale yi ak village yi ak amoo yi ak departement yi yépp fanaan naa fa fanaanee tagg rasulullah bu bët set waaye ñoom ñépp dañuy laaj grand plateau kañ la <laughs> kañ kañ gen cay dem ak kañ nga xam ne li nga wax ni réew mépp li Cheikh Sarr wax ni déedéet li El ni réew mépp seen TV lan jàpp loolu da koy firndeel da koy confirmer tey jii mën naa war ci alxuraan ni réew mépp seen TV la jàpp keneen ku jàpp beneen poste it da nga cee yam di xaar ñu tàmbali. barke alxuraan billaahi wal kitaab te loolu dara waralu ko du bis bu tedd bi ñëw def fii ni ànd ko boroom xam-xam mag bu bari bi nga xamante ni ah, kenn xamul lan la man xaw ma lan la. Hmm? waaw man xaw ma lan la xamaa yaakaar ni sëñ Tuubaa ko préparé rek indi ko fi. di nuyu boo euh, Bogaan. Mhm. di ko ñaanal yàlla guddal fanam ci wéral cëram. yéenam bii mu am ci réew mi mu yàggale ko ndax programme bi programme am bu baax bii liir naa ko ba gis ci mu def yéene tabax aéroport ca Touba te programme boobu programme bu rëy la yàlla na ko yàlla dimbali. amiin te jàppandal ko te yéegee fam. du nuyu nag kenn ci man. le président Ablaye Wade di ko ñaanal wér ak gudd fan. Moussa Sarr Fari Diop di ñaan yàlla suñu borom bàyyi ko fi. amiin ba fekkee lépp. barkal Alxuraan bisimilah. jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay ñu ngi kontaan bu bu baax a baax euh, Cheikh Sarr moom mi ngi mi ngi yebbi li nga xam ne moom mooy teraanga yi mu war a joxe euh, waaye dañu dañu yeggale nuyoo bi ndax euh, njóobeen bi dafa reer yi ba pare door a ñëw ci plateau bi te xamul ne michu yi yee ngi fi yu baax yi ñu ngi ñëw xam naa ne moom moom laay mujjee ndax fi mu toll nii mënul wax <laughs> maa ngi koy ziar bu baax mais dinaa dinaa ñu ñëw ci moom nga xam te ne daanaka jataay bi moom moo koy jiite muy Serigne Am Diop ñu siyaar la bu baax a baax Serigne Abdoulahat Maram bëgg nga taxawu jataay bi moo tax sax ñu mujjee ci yow ndax dangay ñaar ci ñun sunu sëriñ nga te it sunu xarit nga ñu ngi lay nuyu bu baax a baax te di la ziar. jërëjëf soxna Fatou Abdou ñu ngi lay nuyu te di nuyu mboolem ñi ñuy seetaan ci Sen TV di ci jiital nag Cheikh mun Mountakha di ko ñaanal sama borom defal ko fan wu gudd wu ànd ak wér ba lim am ci yéene liggéeyal Cheikhul Khadim ci toolub lislaam bi mu def ci lu kawe njortam di ko ñaanal bépp kilifa diine it ak fu mu fi mën a yilife rek ci diine ji sama borom sàmm ko aar ko defal ko fanwu gudd ak wér di nuyu sëñ Abdoulaye Diop bisiri mi nga xam ne moo war a def waxtaan wi tey ji di boroom xam-xam di koo xam ni euh, ku ñeme ab gëstu ku ne di nga sawar ci di diglu ay waxtaanam ndax moom dafa ñeme ab gëstu te gëstu mooy yokk xam-xam gëstu mooy yokk xam-xam te moom dafa ñeme ab gëstu euh, moo tax lu nit bari bari xam-xam bu gisee sëñ Abdoulaye Diop bisiri muy waxtaan dina taxaw déglu ko ndax dina ko wóor ne bu ca dégloo gëstub sëñ Ablaye Diop dina ko dolleel dara moom ci xam-xamam kon ñi ngi koy ziar te di ko dalal di ziar itam sëriñ Akassa Samb mi nga xam ni euh, jàngkat bu mag a mag la ñun bi ñu ko daan dégg Touba daan ko dégg ci ay baas booba ay donga daara lañ di ay xale yu ndaw fu ñu ko masaan a dégg guddi gi dañuy topp rajo yi ba fekk baas ba fa nekk te duñ xam sax fan la kon ñi ngi koy ñaanal li nga xam ne ñoom tey mujj nañ di ay jàngkat daan doon akasa 1 akasa 2 akasa 3 foog naa léegi mënee sa tulee na wàññi gone yépp a ngi akasa akasa lu fi ne te moom jëmm ma ko waral ñi nga ñi mu xiir ci jàng xasaayit ci bëgg Serigne tubaa ci di gëstu xasaayit Serigne Touba yi ci ndaw ñi kenn xamul nu mu toll loolu rek doy na ab liggéey ñu ngi koy ñaanal sama borom sàmm ko te aar ko di nuyu Serigne Amidoune jóo bu baax di la nuyu Soxna Fatou Abdou di nuyu Serigne Ablaye laam di nuyu itam Serigne Cheikh Mbacke Mbuub euh, Serigne Alaaji Ablaye Mbay Peex ngi koy nuyu Euh, di nuyu bu baax suñu xaritu bopp bi tam suñu Cheikh saar daanaka Serigne Mohamed Mbaye ñi ngi koy nuyu du jar ñuy guddal ci nuyoo bi. Mhm. ñu ngi nuyu ñëpp mboolem ñi. jaajëfal nañ la bu baax a baax ñu ngi lay jaajëfal baax a baax euh, sangu sang yi Mouhamed Mbaye. <laughs> sallallahu alayhi wa sallam baax a baax. xaq <laughs> naasiril xaqi bil xaqi. talaatil xaqi bil xaqi minal xaqi ilal xaqi xaqu xaqaa'iqin wal xaqu xaqahu wala xaqa yaxiqu bi xaqihi wa ala alihi wa saxbihi wa man tabi'a al huda bi hëddiyin ila yawmi diini nuunaani nuunaani lam yaktubuhuma xalamun fi kulli nuunin mina nuunayni aynaani aynaani aynaani lam yaktubuhuma xalamun fi kulli aynin min al aynayni nuunaani Fatou Abdou maa ngi laa nuyu bu baax a baax di la ziyaara bi ma la gisee sànq ci groupe bi laa ni Fatou Abdou nag moom ci Cheikhul Khadim nag gëm naa ko tabaarakallahu ndax eh, yàlla bés bu ne ak ñamu cay boole waaye sa sa sa dal sa mën rafetal yàlla na la cheikhul xadim teg loxo nuyu sëriñ Amidoune jóob mi nga xam ne li Cheikh Sarr wax léegi baat bu am solo la te gàtt mooy da yokk te ku ñëw Grand Plateau ren dina xam ni da ngaa yokk yàlla na yàlla sàmm la li ma lay wax su nekk yàlla na nga am ngërëmal cheikhul xadim cheikh and boo gis ci àdduna rek day am ñu taxaw am ñu continuer am ñu dabe ànd boo gis yàlla na yàlla sàmm la di nuyu sunu papa Abdoulahi Lam moom itam mbégte lool ci plateau tayam bi ñaanal ko yal na yàlla yokk wéram yal na yàlla guddal fanam ndax saa su nekk mu ngi ñuy conseiller mu ngi ñuy wax fan la ñu teg suñu tànk nuyu sama seex géwalu seexul xaddim ni ngeen ko waxee léegi seex Mbàkke Mbuub daf may defal ay teraanga léeg-léeg mu yónnee ma jees neer ne ma dama la ko defal ci papa sama papa sama barke nag papa Abdoulaye Mbay Peex moo tax ma defal la ko ma ni ko mbaax ak teraanga màggal Tuubaa amul lu ma dul defal fu ne lañu ànd nuyu Euh, Fatou Abdou démb ñu ngi toog ci plateau bi ñu bari naan ndax Mouhamed Mbaye mu ngi ci plateau bi. Mhm. ma naan leen damaa taxaw taxawaayu monument de la renaissance. <laughs> bëgguma di di war sama kàddu ci moom.